بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin waala alihi wa asxaabihi wa taabici sunnatihi ila yowm ddin mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu émission minbarul islaam moo del siwaat di dajawaat ak yéen ci kàttanu suñu boroom tabaraka wa taala euh, valeur moo nekk ci xarala gi Ibrahim Khalil Lo moo nekk ci micro bi mbokk yi tey danañu leen jéggalu ci taxawal goo xam ne dañ ko taxawal bunt bi ñu ubbi woon ak yéen mu jëmoon ci mbirum julli ngir dañu fee am gan euh, goo xam ne mën nañoo wax ne saxit du gan ndax euh, jiitu woon na mu jaar fi muy al oustaz ak docteur Mouhamed Ahmed Lo dafa ñëw tey ci émission bi ngir jàppalanteeg noonu ci wàllu liggéey bi moo tax tey dañuy taxawal bunt boobu incha allah euh, déglu ko ci bunt boo xam ne dana ci dana ñu sàkku mu waxtaan ceeg nun te muy càkkutéef boo xam ne mbokki jullit yu bari ñoo ko sàkku ñoo ko yittewoo ngir am gum am solo loolu mu ngi jëm ci li ñuy tuddee al bidaatu dañ di ko miine ci sunu waxu wolof bidaa mu doon loo xam ne euh, bari na lool lu ko nit ñi di tudd bari na lool lu ko nit ñi di wax waaye léeg-léeg ak ñàkk xàmmee daf cay nekk ndax niñ ko xamee suñu borom tabaraka wa taala daf noo andi fii ngir nu jaamu ko jaamu rekk moo tax mu andi nu fi jaamu googu nag mooy ñu teg ko ci la mu digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jottali nu ko bu fekkente ne rax nañ ca leneen nag lu bokkul ak la suñu borom tabaraka wa digle ba noppi di ko jàppeeg jaamu euh, loole moom lañuy faral di tudde biddaa waaye na ay leeral ba tax na kon ñi ngi dalal docteur ci émission bi di tàmbaleeg moom ci mu leeral nu am solo goo xam ne waxtaane bunt bu demee noonu jëm ci biddaa am na ko solo ci dundub jullit bi kon docteur bismillah bismillahi arrahmani irrahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastaciinuhu wa nastacfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayiaati acmaalina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 di leen sant Cheikh Ibrahim di leen nuyu yéen ak déglukat yi minbarul islaam di leen ndokkeel yit ci sax goo ne saxoo nañ ko di déglu euh, waxtaan wi nga xam ne bu ñoro ñor la muy waxtaan wi ñuy déglu ci minbarul islaam kon maa ngi ànd ak déglukat yooyu di sant suñu borom tabaraka wa taala ndax man it kenn ci déglukat yi minbarul islaam la euh, bokk na ci programme yi nga xam ne programme yi rajo dunia yi nga xam ne fu ma fekk su fekkee fu ñu mën a dégloo ab rajo la lu ëpp ci yitte yi su ma ci fekkee danaa ko dagg déglu ko ba mu jeex door jàllaat kon man jàpp naa ne ci waxtaan yi ñor la bokk ci am solo la bokk amul benn werante ne bunt bi Cheikh Ibrahim bunt bu yaatu la euh, benn jataay jeexalu ko ñaari jataay itam jeexalu ko waaye danañ jéem a ànd ak yéen ci suñ kem kàttan ak ci ni nu ko suñu waxtu mayee nu tàmbali ko fu nu yem rek insha allahu taala buñ delsee jàllaat ba leen ci jotoon a bàyyi xel jeex. incha allah incha allahu taala. Hmm. am solo nag goo xam ne bunt bi am na ko solo euh, danañ ko daal di mën a xam ci ay mbir mbir ma ci jëkk moo di benn xadiis bu am solo boo xam ne xudayfatu bnul yamaan radiallahu taala anhu daf koo wax daf ne kaana annaasu yasaluuna annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an alxayr wa kuntu asaluhu an alchar maxaafata an yudrikani wa fi riwaaya maxaafata an aqaa fii xadis boobu buxaari ak muslim ñoo ko génne jële ko ci saxaabi yu bu màgg boobu muy xudayfatu bnul yamaan mu ne nit ñi suñ masaan ñëw fi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ koy laaj la baax man su ma ñëwee dama koy laaj la baaxul ngir ragal caa tàbbi kon ndeke xam li baax li muy am am solo xam li baaxut it lu mënta ñàkk la ndax kat kuy dox te yëgoo ne fii ngay jaar pakka nga fa ba nga cey dal doo ko yëg kon nim jaadoo nga miin yoon wi xam fa yoon wa neexe noonu la jaadoo it nga xam fa yoon wa naqaree kon am solo bunt bi muy bunt bi daa dafay daal di leer ci xadis boobu ndax bokk na ci li nga xam ne lu baaxut la ku xam lu baaxul nag danga ko mën a teggi soo ko xamul nag teggi ko day daal di jafe ci yow koo koy tomb jëkk bi tomb ñaareel bi moo di ne boroom xam-xami lislaam dañoo dëppoo ci ne jëf borom bi tabaraka wa du ko nangu lu dul su fekkee ne ñaari ponk daje na ca ponk bu jëkk ba moo di al ixlaasu lillah jëf ji faw ñu sellal ko yàllay kese tax ñu bañ koo def ngir leneen lu dul yàlla wala ngir keneen ku dul yàlla doo ca bëgg dara ja doo ca bëgg aw tagg doo ca ragal aw xas yàllay kese rek day tax mu am loolu mooy mu sell ñaareelu ponk ba moo di mu muwaafaqatu sunna jëf jooju gannaaw bu sellee ba àggal faw itam nag mu dëppoo ak sunna ci ponk ñaareel boobu ci la ñuy xamee am solo goo xam ne xàmme bidaa am na ko solo ndax kat moom mooy safaanub sunna képp koo xam ne dëppoowoo ak sunna da ngay daal di tàbbi ci biddaa kon bunt boobu mi ngi dugg ci buntu xam mi benn façon xam-xam boo xam ne boo ko xamee dana la mën a dimbali ngir nga mën a topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon kooku dafay dugg ci biir buntub shahaadat anna muhammadan rasulullah te xam nga ne kooku mooy beneen xaaju shahaada bi nga xam ne li feeg dajewut ànd ak shahaadatu an laa ilaha illa allah lislaami euh, nit ki du mën a wér mm-hmm. léeg nga gis ku góor góorlu bu baax a baax fexe ba ay yëfam sell nga xam ne dana la leer ne li muy def yàlla kese rek moo tax waaye léeg-léeg mu sàggane geneen wet gi ci des mu di du def ab coono ngir xam lii muy def nan la ko yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa jëfee ak i saxaabaam su ko defee ak fétal day daal di am foofa su ko defee lum ca sonn sonn ak lum sellal sellal jëf ji ginnaaw juuyoo na ak jëf yi nu yonent ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak i saxaabaam day daal di manqué ponk boo xam ne jëpp jëf ju ko manqué borom bi tabaraka wa taala du ko nangu ñetteelu tomb ba moo di buñ seetloo liy wane ne eh, bunt bi am na solo mooy lu bari ci ñiy yëngu ci wàllu xam-xam sax ne duma wax rek ne nit ñi ci mbedd meeg ñi nga xam ne xëy na mbir bunt bi teelu leen da ngay yëg ne sàkkukati xam-xam yi ci seen bopp léeg-léeg nga dégg ay waxiin yoo xam ne dangay ngay yëg ne bunt bi am na lëndëm gum lëndëm ci kanam ndongo yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu xam-xam léeg-léeg nga dégg koo xam ne day fekk yu nekk biddaa du ko jàppe biddaa defe ne sax sunna la léeg-léeg nga jis koo xam ne itam lu mu gis lu nekk te xamu ko moom rek mu jàpp ne loolu biddaa la wala lu mu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfewu ko woon mu ne ginnaaw yonent bi jëfewu ko woon rek kon loolu du mën a nekk biddaa kon loolu biddaa lay daal di doon. Hmm. fekk nag bunt bi gën naa xóot loolu. Hmm. kon njaxas loolu xaw a am ak eh, ñàkk leer gi nga xam ne ñàkk na ko leer ci kanam ñu baree bari. Hmm. ba agsi ci ñooñu nga xam ne ñoom ñooy gëstu xam-xam ñooy yeete ñooy woote. Eh, su fekkee am na lëndëm googu ci seeni bët ak ci seen xam-xam. kon bunt bi aaja na jóg. Euh, leeral ko waxtaan ci ba ñu mën a xam ndax dëgg-dëggi biddaa moom yi nag moom mooy lan bokk na ci itam yi wane ne ah biddaa xam ko am na solo te mooy tomb ñeenteel bi moo di gravité bi nga xam ne am na ko biddaa lu grave la bokk na ci yi wane ne lu lu lu rëy rëy la te grave moo di ne borom bi tabaraka wa taala du nangu tuubu koo xam ne dafa nekk ci biddaa même yeneen bàkkaar yi muy jëfe sax borom bi tabaraka wa taala bu tuuboone du ko nangu li fekk bàyyiwul biddaa bi nga xam ne ci la nekk loolu yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci benn xadis boo xam ne tabaraani moo ko génnee ci téeréem bi ñu wax al mujamul awsat ak ku ñuy wax ad diyaul maqdisi téeréem bu ñuy wax al muxtaara ak ñeneen ñu dul ñaar ñooñu mm-hmm. euh, cheikh mouhamad nasiruddin al albani rahimahullahu taala mm-hmm. euh, génne ko ci téeram bi ñuy wax silsilatul ahadis alsaxixa mm-hmm. muy xadis bu wér li yonente bay wax foofu moo di inna allaha xajaba tawbata an kulli saaxibi bidaatin xata yadaa bidaata borom bi tabaraka wa taala muur na ak tuub làq na ak tuub képp koo xam ne danga doon boroom biddaa li fekk bàyyiwoo sa biddaa kon kooku day daal di wane ne euh, biddaa lu la loolu moo tax euh, al imaam Sufyaan Thawri euh, muy imaam bu mag bokk ci ay matu salaf muy wax ci benn asar boo xam ne ku ñuy wax ibnul jaad ci musnadam génn na ko ak imaam bu ñuy wax allaalakaay moom itam ci Euh, usulu ictiqaad ahlu sunna wal jamaa hmm. ak euh, ku ñuy wax abu nuaym al asbahaani ci xilyatul awliya hmm. euh, mu am ab sanad boo xam ne bu dëgër la al imam sufyan athawri day wax ne al bidaatu ahabu ila iblis min al maasiya hmm. al maasiyatu yutaabu minha wal bidaatu laa yutaabu minha daf ne iblis bidaa moo ko gënal mooy yàlla yi ci des ki nga xam ne wal iyaadu billaahi day jëfandikoo sàngara wala day def lu bon wala day lekk riba wala day xas day xaste wala day saaga wala day jëw kooku li muy def li muy ñaaw ñaaw mooy yàlla yooyu li ñuy rëy rëy iblis biddaa moo ko gënal maanaam nit ki tàbbi ci biddaa moo ko gënal mm-hmm. mu ne li waral loolu moo di ki nga xam ne dafa nekk ci mooy yàlla nee na day tuub waaye ki nekk ci biddaa du tuub mm-hmm. kon kooku loolu mu wax fiq bu xóot a xóot xóot la ndax ki nga xam ne dafa nekk ci mooy yàlla di yëg ne moom mi ngi def lu yàlla xaraamal jamono yu nekk mën naa tuub waaye ki nekk ci biddaa nga xam ne jaamu yàlla la ko tudde moom kuy jaamu yàlla du tuub mhm. ginnaaw moom dafa jàpp ne li muy def lu yàlla bëgg la lu yonentam bëgg la kon kooku tuub mën na koo jafe mhm. nuur googu muy nuur di ñàkk tuub nag mhm. loolu mooy biigloo iblis ndax bu sañoon nit ki la mu nekk tam doon xeetu mooy yàlla du yëg sax ne mooy yàlla la far mm. waxuma la nag di ko tuub bokk na ci yi wane ne biddaa lu grave la ba tey mm-hmm. kooku mooy bu njëkk bi lii wane ne biddaa lu grave mm-hmm. bokk na ci maanaam ne biddaa dafa am ki koy def moo xam yëg na ko wala yëgu ko moo xam wax na ko ci làmmiñam wala da koo wax ci ay jëfam ndax mm-hmm. jëf léeg-léeg mu wax kooku dafa tuumaal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi tabaraka wa taala dafa wàcce alquranul karim ci ab yonent digal ko mu leeral alquran jooju wàcce ci moom diine ji mu di ko leeral ba mu ne ko alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina hmm. yéen tey jii day laa àggale nag seen diine ji ma doon wàcce ci yéen mottali leen seeni xéewal lislaam ji itam ma gërëmloo leen ko lislaam ji mu gërëmloo moo di lislaam ji yonent ba sallallahu alayhi wa sallam doon dund moom ak i saxaabaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir loolu borom bi wax ko ne ko yaa ayuha rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in la tafaal fa ma ballagta risalata digal ko ne ko jotlil li yàlla wàcce ci yow kon diine jumat mat jooju jotli ko su fekkee ne defoo li ma la digal kon mel na ne li la yàlla sant defoo ko kon jotli woo lettre bi nga xam ne moom la la yàlla joxoon kon kii andi bidaa dañ koy laaj ndax yow lii nga sos nga xam ne bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon tey moo ki saxaabaam ñu fekk nga di ko def tudde ko jaamu yàlla ñoom duñ ko xam ndax lii ngay def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ko wala xamu ko su fekkee xamu ko woon kon kooka moom mënta bokk ci diine lislaam su fekkee da nga ne xamoon na ko nag laaj bi ñëw mooy ndax jottali na ko wala jottaliwu ko soo ne jottali na ko ñu ne la anamu alxuraan jaa ngi sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jàpp ndal na ak tasaaroom ana fam fa toll wone ko soo ko wanewut kon day wane ne loola jot liwu nekku fi soo nee nag kon am na waaye daf ko jottaliwul hmm. kon tuuma ja daal nay dikk hmm. kon mel na ne la ko yàlla digaloon ne ko hmm. balligh ma unzila ilayka dangaa bëgg a wax ne kon moom am na lu mu nëbb te yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nëbbul dara kero ba mu taxawee ca xajjatul wadaa lu ëpp téeméeri junni ci ay saxaaba teew fa ba mu waxee ba daaneel daf leen a laaj ala hal ballagtu ndax jot li naa ñu ne ko jot li nga mu daal di yëkkati baaraamu bu tedd ba joxoñ asamaan daal ne allahuma ashhad yàlla seedeel ne man kon jot li naa kon yonent bi sallallahu alayhi wa jot li na ah, bunt bi bokk na ci yenuy won ak am soloom itam moo di lu bare bari ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy asalafu saalix la ko dale ca jamonoy al imaamul buxaari ba ci sun jamonoy tey dañoo bind ay téere yu baree baree bari yoo xam ne yii ci tontu ñi nekk ci biddaa la yii leeral bi daa ko tax a jóg ñii soññee ci jàpp sunna te bàyyi biddaa moo ko tax a jóg hmm. doon naa jii ma takk tuuti téere yi rot ci ñetti bunt yooyu ma wax hmm. gis mu bari bari goo xam ne hmm. jot naa ci lim juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett hmm. mu des yeneen yu baree bari hmm. ci ay téere yoo xam ne asalafu saalix ñoo ko bind ci bunt boobu kon kooku bokk na ci yi nuy jox itte goo xam ne bunt boobu am na ko euh, Cheikh Ibrahim waaw ah, jërëjëf euh, docteur euh, defe naa loolu nga jot a tudd ci ay tomb yoo xam ne benn bu ci nekk ci gravité am rek dana nu wan garaaw goo xam ne euh, biddaa garaaw na ko ci loolu itam moo nuy wan itam kon yitte joo xam ne jàng ko bunt boobu ak nafar kook fàttalante ko am na ko solo lool ci dundi jullit euh, dinaa ko faral di misaal di wane ne borom bi tabaraka wa taala même ci àdduna li ñuy lekk ak di ko naan euh, daf ñu cee tànnal yi nga xam ne moo teey yi nga xam ne moo nuy mën a jariñ te lor du ci nekk waaye xam nga ne mbooleem du luy sax ci gàncax rek euh, am na njariñ wala mën naa euh, jariñ nit ki wala lor mën na ko caa ñàkk bàyyi ko noonu nit ñuy defee effort nag ba xàmmee gàncax gi nga xam ne moom la ñu war a bay ngir mu mën leen a dundal mën leen a wéral euh, ñu wattandiku ya ca des jariñoo ko ca leneen la ko tax a jóg muy jox ko jur ga wala jox ko yeneen waaye doomu aadama du ko dunde loolu nga xam ne ci wàllu yaram rek la jëm ndéeg moom la doomu aadama woo noonu rawatina nag ci li nga xam ne dafa jëm ci wàllu ruux ruux mooy li nga xam ne moom moo commandé yaram moo commandé lépp su fekkente ne yéwén na dund doomu aadama bi ci àdduna dafay yéwén waaye su fekkente ne yéwénul dundam ci àdduna du neex tey itam ak texee di lay am alaxira kon biddaa noonu nga ko waxee euh, noonu la grave borom bi tabaraka wa mi ngi wax ci suuratu kahfi qul hal unabbi'ukum bil axsarina a'mala alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a ndax duma la xibaare ñi nga xam ne eh, seeni jëf perte nañ ko ñooñu mooy ñi nga xam ne nee seeni jëf dafa sànku ci dundub àdduna bii ñu nekk te nee na ñi ngi jàpp ne li ñuy def lu rafet la kon lay del des ci li nga waxoon ci borom biddaa toujours day jàpp ne boo gisee mu gënal iblis comme ni nga ko waxee day jàpp ne lim nekk moom ak jaamu yàlla la te nit ki li mi ngi jàpp ne lim nekk ak jaamu yàlla la du ca tuub su ko defee nag kon euh, dunda bépp mu nar koo jeexal ci loolu waaye ni nga ko waxee biddaa boobu toujours nit ñi dañ ciy am ay lënt ci di am yuñ cay dugal te bokku ca di am yuñ cay génne itam te mën naa am ca la bokk loolu moo indi kon ci ñu yittewoo tomb xam le dëgg dëgg dëgg lan mooy bidaa ndax ni am na ñoo xam ne comme ni nga ko waxee euh, lépp loo xam ne xewul woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yonent bi defu ko woon lu mel ne yii am léegi ci ay jumtukaay yu nit ñiy jëfandikoo yépp euh, dañuy wax ne kuy wax ne doo def bidaa kon waroon nga fee bàyyi yooyu yépp waroo dugg oto waroo dugg avion waroo yore montre ak yi nga xam ne yépp daal ay jumtukaay yu jamono indi ñu wax ne yooyu ay bidaa la ah jàpp ne itam lépp loo xam ne ñoom rafetlu nañ ko ci seen xel jàpp ne diine la ñu la loolu du bidaa ndax am na ci diine ci la bokk kon am na lu ñuy dugal jàpp ne ci la bokk am na lu ñuy génne itam jàpp ne euh, bokk ca fekk na ci la bokk ba tax na kon euh, tomb bi ñu bëgg nga leeral nu ko mooy xam xamle nag dëgg-dëgg lan mooy biddaa. Eh, biddaa. waxu arab la waaye xam nga ne eh, arab eh, terme yu bari yoo xam ne daf ko jëfandikoo lislaam day ñëw am weneen tur wum ko mën na fa bàyyi turoo waaye fekk leneen la ci jublu moo tax da ngay ñëw ci téere yi jàngle gis bu ñuy définir dara di ko xamle dañ lay wax ne nàngam luxatan mooy nàngam waaye nag bu dee charan wala ñu ne istilaaxan mooy nàngam comme ni nga xamee ne da ngay ñëw ci julli ñu ne la asalaatu bu dee ci arab mooy ñaan waaye nag bu dee ci sharia julli ëpp na ñaan ñaana nga ca biir waaye yeneen a nga ca biir am njàng nga ca taxawa nga ca rokkoo nga ca sujjóota nga ca kon mooy la tàmbalee ci kàbbaru armal ba ba keroog ngay sëlmal mm-hmm. loo fa def lu ne rek loolu la sharia moom di tuddee julli mm-hmm. kon euh, aw day am ci arab aw am ci sharia mm-hmm. albidaa buñ ko waxee ci arab mooy alsheyul muxtara ala gayri loo xam ne dañ koo sos muy door a am dara lu mel ne moom mosu koo jiitu loolu moom la ñuy tudde biddaa yonent bi sallallahu alayhi yàlla nee na ko qul maa kuntu bidaan min ar waxal ne man doonuma yonent bu yees boo xam ne ku mel ne man mosu fee jaar kon kooku moo lay wan ne biddaa mooy lu yees lu musta am lu ko jiitu te mel ne moom moo tax al imaamu day wax comme ni nga xamee ni eh, al asbahaani na ko ci xilyatul awliya ci sanad bu dëgër moom itam mu ne al bidaatu bidaataani nee bidaa ñaar la bidaatun mahmuuda maanaam bidaa boo xam ne bu baax la buñ sant la wa bidaatun madmuuma ak bidaa bu bon boo xam ne buñ ŋàññi la luy loolu mu ne fa maa waafaqa sunnata fa huwa mahmuud lu dëppoog sunna loola lu baax la luñ sant la hmm. wa ma xaalafa sunnata fa huwa madmum hmm. lu jooyoo ak sunna hmm. lu bon la luñ ŋàññi la kon kooku moo lay won lim ci jublu mooy bidaa ci arab buñ tuddee nangam lu bees loola lu mën a doon fàww lu baax lu dëppook sunna lay doon wala mu doon lu bon lu juyoo ak sunna Omar ibn al radiallahu taala dafa am kàddu gu ñuy jële ci moom mu di dafa mas a wax ne ni'matil bidaatu haadihi bidaa ngi day bu baax fekk loola lan la ci jublu moo di dafa dajale saxaaba yi ci jullik naafil ak weeru koor wutal leen yilimaan te fekk loolu amul woon ci jamonoy abubakar as-siddiq amagul woon it ci jamono moom Omar ibn al-Khattab ba ci jamono yooyu mu door koo amal. Hmm. ndax dafa dugg ci jàkka ji gis jullit yi kenn ku nekk di julli sa naafil ak bopp mu boole leen ñoom ñëpp wutal leen jenn yilimaan yilimaan ji ñoom julli ci seen kanam muy Tamimu yi hmm. beneen bi ci des di Ubay ibn Kaab. Hmm. ñu daal di jiite julli mu xool ji sàpp yi ni mu jekke ak njàngoom imaam ji ni mu neexe mu daal di ne ah lii biddaa bu. rafet la hmm. lii de biddaa bu am solo la hmm. kon foofu lim jublu ci biddaa biddaa ci arab la waaye du biddaa ci sharia hmm. li ñuy xamal ne du biddaa ci sharia mooy loolu doonut lum fent moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom moo jëkk julli julli taraawix muy naafila koor ci ak dundam def ko lu mat ñetti guddi ñeenteelu guddi ga ba mbooloo mi dajaloo di ko nekk dikkul bi xëyee di julli si fajar mu ne leen yëg naa seen dajaloo gi ngeen fi dajaloo waaye li teewoon ma ñëw mooy dama ragal ñu farataal ko ci yéen hmm. kon kooku dal nay am sabab soo xam ne moo taxoon mu arrêté ko hmm. biñ demee nag ba sabab soosu amatul moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi kon farataal amatul hmm. su boobaa kon eh, mën nañoo dellusiwaat ca la nga xam ne moo doon àtte bu njëkk ba muy dagan ga ndaxte ni ko boroom xam-xam yi usul yi di waxee al illatu Euh, alxukmu yaduuru maa illatihi wujudan wa adaman hmm. atte bu mu mën a doon dafay ànd ak li nga xam ne moo tax mu jóg hmm. li feeg la ko yëkkati woon ma nga fa moom atte ba dafay nekk la ko yëkkati woon su fa jógee atte ba dafay dal di jóg hmm. kon Euh, loola ci jëmbi boppam duñ ca tegtaloo ngir wax ne ci biir sharia dafa am biddaa yu rafet ak yuy ñaaw mm-hmm. waaye lañ ciy jëli mooy bu dee ci luxa moom mm-hmm. bu dee ci wàllu waxiinu arab mm-hmm. am na lu arab di tudde bidaa maanaam lu yees te yu yees yooyu dana am yu baax dëppoo ak sunna dana am yu bon dëppoo ak bidaa moo tax euh, al ibnu kasir Euh, rahimahullahu taala daf ne al bidaatu ala qismayni comme ni ko imaamu Shaafi waxe woon hmm. nee na taaratan takunu bidaatan charia hmm. léeg-léeg mu nekk bidaa boo xam ne ci charia la maanaam lislaam moo koy tuddee bidaa hmm. ka qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa inna kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ne foofu lépp luñ sos bidaa la te bépp bidaa ak réer la kooku bidaa la ci jublu ci charia Hmm. mu ne wa taaratan takunu bidaatan lugawiya hmm. nee na léeg-léeg bidaa lay doon boo xam ne rek ci wàllu làng la wàllu waxinu arab hmm. ka qawli amiril muminina ala jamcihi iyahum ala salaati tarawix wa istimraarihim nicmatil bidaatu haadihi nee na kon léeg-léeg bidaa lay doon ci wàllu arab comme ni amirul muminina omar ibn alxataab waxe woon ne eh, nicmatil bidaatu haadihi mu di Euh, biddaa bi am na solo kooku mi ngi ci tafsiru ibnu kathir waltakum minkum ummatun yad'uuna ila alxayri wa ya'muruuna bilma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين kon euh, al imam ibnu kathir rahimahullahu taala waxam boobu bu am solo la ndax nee na léeg-léeg bidaa day fekk ne bidaa la rek ci langue comme li amirul muminina waxoon muy omar ibnu alxataab radiallahu taala anhu ci salaatu tarawix mu ne bidaa bu bu baax a ngi nii kooku mi ngi ci euh, tafsiru ibnu kathir euh, alxaafis ibnu rajab nee na wa ama maa waqaca fi kalaami salaf min istixsaani bacdi lbida bacdi lbidac fa innama dalika fi lbidcati allugawiyati la sharciya fa min dalika qawlu omar nicmat albidcatu haadihi e, alxaafis ibnu rajab raximahu llahu taala ci téeréem bu ñuy wax jaamicu lulumi walxikam daf ne foo gisee ci waxi nit ñu baax ñi boroom xam-xam yi ñu ne biddaa bu rafet a ngi nii nee na bu boobaa xamal ne biddaa ci waxu araab la ci jublu hmm. waaye jubluwu ci biddaa ci shariatul islaamiya mu ne loolu moo tax Omar ibnul Xataab waxoon wax jooju biñ nekkee ci salaatu tarawih mu wone ne lii biddaa bu baax la hmm. kon daal biddaa ci waxu araab mooy lu yees hmm. loo xam ne lu amut woon ba mu yàgg mu am la kon loolu mën naa doon lu baax mën naa doon lu baaxul bu dee ci sharia nag bidaa ngir xam ko faw ñi ngi ko mën a xamee ci jëmmi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñetti xadis yoo xam ne buñ dajee ci la jóge daal di xam bidaa mooy lan xadis yooyu bi ci jëkk mooy xadisu al irbaat ibn saariya radiallahu taala anhu xadiisu irbaad ibnu saariya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ca nett li nga xam ne dana dem ba mu yàgg mu xew ci juuyoo goo xam ne dana am ci biir xeet wi bi mu ko nettalee ba àggal mu laaye biir xeet wi biir laaye biiram yooyee ak jàngaleem yooyee sallallahu alayhi wa sallam mu boole ca ne wa iyaakum wa muxdasaati l umuur fa inna kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala mu ne wattu leen mbir yi nga xam ne dañ koo sos ndax kat lu ñu sos lu ne biddaa la te biddaa bu ne ak réer la xadis boobu mu ngi ci abu daawud mi ngi ci tirmidi mi ngi ci ibnu maaja cheikh mohamad nasiruddin al albani wéral na ko ci téeréem bu ñuy wax zilaalul janna fi taxriji sunna kon wattu leen mbir yiñ sos ndax luñ sos biddaa la te daa bu ne ak la kooku mooy xadis bu njëkk bi waaye na ko bàyyi xel danañ ci dellusi beneen bi ci des mooy xadisu jaabir ibni abdillahi radiallahu taala anhuma ci xutba bi yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy xutba boobu nga xam ne mooy xutbatul xaaja saa bu masaan di ubbi mbir mu am solo mu nekk moom la koy ubbee mooy ba tàmbalee ci inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nastainuhu boo toppee xadis bi dafa dem ba mu yàgg mu ne fa inna asdaqa alxadisi kitaabullahi taala wa axsana alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa charra alumuuri muxdasatuha wa kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar dafa dem ba mu yàgg mu ne li gën ci loo xam ne ñi ngi koy waxtaane mooy téere bi yàlla li gën a rafet ci ak njub goo xam ne doomu aadama nga koy sàkku mooy njub gu jóge ci muhammad ibni abdillahi salallahu alayhi wa sallam hmm. mu ne nag la yées ca mbir ya mooy ya ñu sos hmm. lépp lu ñu sos bidaa la bépp bidaa ak réer la te gépp réer sawara la jëm hmm. kon boobu xadis loolu la joxe danañ ci del si moom itam ñetteelu xadis yi mooy xadisu aïcha ummi lmuminina radiallahu taala anha dafa ñëw ci xadis boobu mu ne man axdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd xadis boobu buxaari ak muslim ñoo ko génne ci beneen riwaaya boo xam ne riwaaya muslim rek la daf ne man amil amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd lan la xadisu Aïcha di wax daf ne ci sun mbir lu ci bokkul loola duñ ko nangu dañ la koy delloo ku sos ci sunu mbir loo xam ne bokku ci di ko nangu des la koy delloo mm. beneen bi ci des mu ne ku jëfe jëf joo xam ne sunu ndigal wala sunu mbir nekku ca mm. loola des la koy delloo mm. ñetti xadis yooyu suñ ko seetloo danañ gis ne mbir mi ngir ñi tudde ko bidaa ci sharia faww ñetti tënk dana ci daje mu door a tudd bidaa ci sharia tënk bi ci jiitu moo di sos faw bi daal luñ sos lay doon ndax kat boo xoolee da nga gis ci xadiisu irbaat ak xadiisu jaabir mu ne fa inna kulla muxdasatin bidaa beneen bi ci des mu ne wa kullu muxdasatin bidaa luñ sos lu ne bidaa la kon sos mu mënu cee ñàkk ah maanaam lu am gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam lay doon kon buñ ne sos kon yeñ suusul ñoom bokkuñu si lu mel ne julli juróom lu mel ne joxe asaka lu mel ne koor loolu kenn ku nekk xam na ne du luñ sos gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci alquranul karim mi ngi ci sunna bi mhm. sos la mhm. tënku ñaareel mhm. loolu biñ ko sosee ba àggal dañ koy jàpp ne ci diini ji la bokk waaye nag soo sosoon sa yëf itam lu mën a doon nag waaye jëmale woo ko ci lislaam da nga ne leneen la loo xam ne lii xëy na suñ folklore la wala suñu aada ak suñu baaxi maam ak suñuy cosaan la hmm. di ko jëfandikoo te boole woo ko ci diine ji hmm. kenn du ñëw ne la lii bidaa la ci sharia hmm. dañ lay bàyyi rek ak say yëf bu fekkee mooy yàlla la mooy yàlla la bu fekkee aada ju sharia nangu la ñu xam ne aada ju juuyoowut ak sharia la waaye kenn du ko tudde bidaa ci diine moo tax gannaaw boo xam ne sos gi am na ba noppi faw ka sos daf koy askani ci lislaam ne lii ci diine ji la bokk loolu nag buñ ko xoolee ñu ngi koy jëlee ci xadiisu Aïcha radiallahu taala anha ne man ahdasa fii amrina fii amrina ci sunu mbir mi ku ci sos sunu mbir mi mooy lan ibnu rajab daf ne ittafaqu ala an al muraada bi amrihi haahuna diinuhu wa charuhu ibnu rajab daf ne dëppoo nañ ñoom boroom xam-xam yépp ci ne xadis boobu lim ci jublu ci sunu mbir mi moo di diineem ak shari'am kon su fekkee xam nañ loolu danañ daal di xam ne leneen luñ sos lu mën a doon ci yi ñuy jëfandikoo ci ay jumtuwaay loolu bu kenn ñëw naan la biddaa la boo xam ne biddaa la ci diine ndax loolu kenn kenn tuddewu ko kenn waxul ne ci diine la bokk kon Euh, lu weesu tey bu ñu déggati ku naan montar bi. Mm. ci biddaa la bokk. Mm-hmm. wala microphone bi ci biddaa la bokk. ku ko mm-hmm. nangu war ngaa nangu yeneen biddaa yi ci des. Mm-hmm. kon kooku bokkul ci. biddaa yi nga xam ne yuñ tere la ndax. kay takk montar ci sharia la bokk. ndax ka koy def euh, jubluwul ne lii ci biir diine la bokk. ñetteelu tënk ba moo di. li nga xam ne moom dañuy wax ne allaa yastanid hada al ixdaasu ila aslin sharciyin am aw xaas hmm. gannaaw biñ ko sosee ba boole ko ci diine ji hmm. bu mu am dalil ci sharia boo xam ne ca la sukkandiku hmm. dalil boobu nag léeg-léeg day ñëw généraliser maanaam yaatal lool léeg-léeg it mu ñëw masala bi dara tax koo jóg mu ñëw jubal si loolu buñ jëloon misaal ci lu mel ne Euh, saxaaba yi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa dañoo bind hmm. alquran yépp ci ab mushaf hmm. boole ko mu doon ab kaamil hmm. boole googu ab kaamil muy benn kaamil ñu yore ko ne alxuraan jaa ngi kooku amul ci biir dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi doonte bind gi it am na nag ci dundam waaye boole gi boole googu ndax dañuy ñëw daal di ne biddaa la ndax amul woon ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne déedéet ndax kooku dafa sax ci dalil shar'i am am na dalil boo xam ne ci sharia la borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne inna alayna jamaahu wa qur'aana alquran ji man yàlla maa war lu dajale ko mm-hmm. ginnaaw yàlla moo war lu dajale ko nag dajale mën naa doon dajale ko ci dënnu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko mokkale woon moom yonent bi ak ña ko mokkaloon ci saxaaba yi mhm. mën naa doon ak dajale goo xam ne dañ koo dajale ci jumtuwaay yi nga xam ne mooy am gannaaw bi mhm. alxuraan di daje ci biir mhm. kon kooku dalil boobu làmboo na ko rawatina nag su dikkee moom dalil boobu ànd ak daje goo xam ne dëppoo goo xam ne saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo nañ ci dajale alxuraan kon kooku euh, tudde ko biddaa ak réer lay daal di doon hmm. ak ak ñàkk a dégg bunt bi nga xam ne mooy buntu biddaa hmm. ba tey itam léeg-léeg mbir mi mën naa nuru biddaa ci ku koy xool te xamoo fekk moom am na sax dalil bu spécial boo xam ne moom moo ko tax a jóg hmm. lu mel ne euh, nettali Omar ibn al-Khattab bi jàlloon léegi ci salaatu tarawih koo xam ne yëgoo woon ne loolu amoon na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne masalan da ngaa yëg rek ne Abu Bakar musta def salaatu tarawih te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam defatu ko woon Omar ibn al-Khattab jekki ba ci jamono mu def ko boo yàkkamtee da nga naan ah lii kat kon biddaa la boo xam ne Omar ibn Xattaab daf koo sos. Hmm. fekk ndekete loolu du biddaa ndax am na dalil boo hmm. xam ne spécial la boo xam ne moo ko tax a jóg. Hmm. mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon na ko. ba mu ko bàyyee itam wax illa ji tax mu bàyyi ko. kon illa jooju ba mu dañee rek defaat gi day daal di day daal di jaaduwaat. day del si doonaat sunna comme na mu ko doone moom. kon euh, ñetti tënk yooyu. mënuñoo ñàkk ci biddaa. moo tax. ibnu xajar al asqalaani muy wax ni liñ jublu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ne kullu bidaatin dalaala daf cee jublu ne li ñu sos ci diine te amul benn dalil boo xam ne ci lay sukkandiku loolu moo tax kon suñ bëggee définir bidaa ci xamle gu gàtt a gàtt dañuy wax ne maa uxdisa fi diini min gayri dalilin muctabar lépp loo xam ne dañ koo sos ci biir diine lislaam ji te amul sukkandikukaay boo xam ne bu wóor la bu mu sukkandiku ci sharia kooku moom la ñuy tudde biddaa bi maanaa xeetu jaamu yàlla boo xam ne ay nit a ngi koy jaamu tudde ko jaamu yàlla di ko jëfe wala ñu koy waxe wala ñu koy doxe te bu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam delsi woon ak i saxaabaam du ñu xam lii lu mu doon kon loola mooy biddaa kooku mooy biddaa ci diine kon ci biir loolu danañ ci mën a déggee ne saa buñ nee nangam biddaa la ci sharia kon biddaa la ci sharia ak ci arab itam waaye nag mën nañ ne biddaa la ci arab ci waxinu arab te fekk du biddaa ci sharia waaw loolu daal defe naa ne ci ak euh, gàttal mooy li nga xam ne moom mën naa xamle biddaa ci lu gàtt fa tabarakallah euh, tomb boobu euh, dafay bu am solo lool ndax moom mooy ceeb yi waxtaan wi muy xamle lan mooy biddaa euh, ni nga ko leerale euh, wane ne biddaa xam nga nun ci wolof dañ ko jël ci baatu arab bi te arab moom lu mu wax la muy tekki ca làkk wa ak nag li muy tekki ci sharia dafay faral di wuute ñun nag gannaaw ñun dañ ko jël rek tudde ko biddaa eh, nga xam ne ci biir sariya rek lañ koy xame la muy tekki ca làkk wa moom gannaaw làkkuñu arab eh, ñaare du yitteel léeg-léeg lu dul ña nga xam ne xëy na seen niveau egg na ca moo tax lu ñu ne biddaa la rek ñoom ñu daal di jàpp ne biddaa diine tax ñuy wax fi mu ne foo ne biddaa rek nit ñi dañuy jàpp ne biddaa diine la te ni nga ko waxee biddaa am na boo xam ne ci sharia la am na boo xam ne du sharia ndax baat bi li muy tekki rek mooy lu bees te loolu yi defe naa war nañ koo mën a dégg ndax lu mel ne julli buñ ne asalaatu bi fii julli euh, xam nañ ne li nga ko wax ci luxa muy li muy tekki ci làkk bi mooy wàllu ñaan waaye li muy tekki ci sharia moom gën naa yaatu ñaan ni nga ko waxee ñaan ak ci biir leneen ak ci biir ñu di ko tàmbalee ci ab kabar di ko jeexale ci ab sëlmal mu ànd ak ki rukkoo ki su lépp baat yi mën nañoo daje ci bokk nuñ leen tudde waaye sens ba du bokk parce que damay julli tisbaar bokkul ak damay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam ne ne julli ci du ay rukkoo ak i sujjóot waaye euh, ñaan la goo koy ñaanal ndax sallallahu alayhi wa sallam ji nga wax xéewal ak mucc goo ko ñaanal mu bàyyi ko suñu borom tabaraka wa taala la kon demee la foofa julli ca loxo ba nga ko delloo bu dee rukkoo yaak sujjóot yi nag nga xam ne kon boobaa dafa ñëw ci julli ci wàllu sharia loolu kon dinañ ci mën a dégg bu baax ne kon euh, buñ nee nangam biddaa la yu mel ne ñu sos montar yeeg yu demee noonu biddaa la waaye biddaa la ci waxiinu arab rek waaye du biddaab diine ba tax na bu dee lu am njariñ jëfandikoo ko taxul a nekk nitug biddaa hmm. bu fekkee lu am njariñ la loo xam ne lu mën a jariñ euh, nit ki la def ko doonte biddaa la du taxul a nekk nitug biddaa ndax biddaab loo xam rek la hmm. euh, biddaa ci sharia nag dañ ko xam xamle mooy loo xam ne nit amul woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam defu ko amul lenn cosaan ci diine euh, ba noppi nit ki sos ko ba noppi nag euh, boole ko ci diine waaye foofu euh, danaa la fi laaj loo xam ne dana jar leeral bu baax a baax ndax ñu baree baree bari ci ñiy layal biddaa ca la ñuy faral di jafandu mooy li nga wax ne bu fekkente ne amul dalil boo xam ne mu'tabar la am na ñoo xam ne moom bu fekkente ne lii ñuy def am na cosaan ci diine waaye mën naa am xëy na defiin wa ak melokaan waa ak waxtu yaag yeneen yañ ko wutal mooy la nga xam ne moo ci yokk ñoom bu ñuy wax rek dañuy war ne ah fii kat li nu fii def mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala mooy jàng alquran wala mooy tudd yàlla te loolu lépp sax ci diine kon ku bëgg a wax ne loolu bi daala ah, li ngay wax teguloo ko fenn ba tax na kon foofu it dana jaral xamle ne ah, jëf ji Euh, mën na cee am sax lu wér mën naa am lu wér am cosaan ci diine mais ca am leneen luñ ca yokk wala neneen luñ koy defee tax loola tax koo doon bidaa loolu itam jar na leeral bu baax a baax baax euh, loolu nga xam ne it moom la ne fii amrina hada maa laysa minhu maa laysa minhu jooju itam euh, ñu bari danañ ci di faral di jafandiku maanaam lim ne ku sos ci sunu mbir mi lu ci bokkut ah nit ñi nag ne kon bu ñu sosee ne kaay leen leenu daje fii bis sàngam muy tudd yàlla muy jàng alquran muy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ah loolu moom ca la bokk donte noo ko sos itam xew-xew bi amul woon ca la bokk ndax loolu amoon na ci diine kon loolu du bidaa foofu itam bëgg nañ nga leeral ko bu baax a baax. Hmm. jërëjëf euh, <coughs> Cheikh Ibrahim hmm. jëmmi bidaa ci boppam. Hmm. Ah, bala ñëw agsi ci tomb boobu. Euh, ñu dellusiwaat ci bidaa ci luxa ci wàllu waxu araab boo gisee lenn ci ñi nga xam ne seenu gëstu ci bunt bi taxut mu xóot ñuy wax ne biddaa ñaari xaaj la am na bu rafet am bu rafetul fekk ñoom ca biddaab luxa lañ gis lenn ci boroom xam-xam yi di ca wax ndax léeg-léeg nga gis ci boroom xam-xam yi ku bind wax la ne la biddaa eh, ay xaaj yu bari la atte yi nga xam ne juróomi àtt la yi ñuy wax ci usul sax day am ci bidaa yooyu dañ lay wax ne am na biddaa boo xam ne bu dagan la am bu xaraam am boo xam ne buñ sib la am boo xam ne buñ sopp la am boo xam ne sax bu war la fekk ñiy wax loolu ci bidaa yi ñuy waxtaane mooy bidaa bu wàllu waxiinu arab mm. waaye jubluwuñ ci ci sharia mm. bu dee biddaa ci sharia yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax waxam mu jeex mm. amul beneen wax bu ci war a mën a tegooti mm-hmm. muy kullu bidaatin dalaala wa mm-hmm. kullu dalaalatin fi naar mm-hmm. kooku ba mu daal di jeex mooy bidaa ba mu mën a doon rek eh, fa yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ci biir diine la kooku ak réer la waaye nag bu dee biddaa ci wax waxu arab mën naa dem ba war ndax mooy yi sosu mhm. yi sosu am na ci yoo xam ne mën nañoo dem ba gis ne nàngam lu war la mhm. masalan léegi suñ bëggoon a joxe loolu ci loolu misaal mhm. dangay gis ne aji màkka ci ki ko man ci alalam ak wér gi yaramam ak man ko lu war ci moom la waaye ci jamono ci wàllu tëraliin ak organiser dem nañ ba wane ne am na yoo xam ne nit ki faaw mu am ko door a dem lu mel ne passeport. Hmm. passeport ku ko amul mënoo aji. Hmm. te passeport ci yi sosu la bokk. Hmm. waaye gan sosu ndax dafa sosu ci sharia wala dafa sosu ci wàllu waxin waxinu arab bu doon ci arab mën nañ ko tudde biddaa ndax lu sosu la waaye bokkul ak biddaa ci sharia su boobaa dañ lay wax ne passeport kat day war kon ginnaaw yow yëpp war na la ba benn boobu rek moo ci des ah nga xam ne laa yettimul waajib bi bihi hmm. borom xam-xam yi usul ñuy wax ne maa laa yettimul waajib illa bihi fa huwa waajib hmm. lépp loo xam ne li la war hmm. balaa mën a sotti loola daa sotti kon loola sotti day daal di war ci yow kon amal passeport day daal di doon lu war ci yow nga door a mën a aji kon biddaa bu war day daal di am foofu yeneen yi ci des yëpp yuñ sos boo ko seetantalee da nga gis ne comme niñ ko waxee am na ci yuñ sopp am na ci yoo xam ne yuñ cible am na ci yoo xam ne yuñ xaraam la eh, ba at yooyu juróom am ci yoo xam ne dagan la euh, comme ni nga xam ne li ñu tuddee al ahkaamul xamsa noonu la amee mm-hmm. beneen tomb bi ci des nga junj ko tamit bu am solo mm-hmm. mu di euh, wax gi nga xam ne mm-hmm. lenn ci euh, waxkat yi ci biddaa te bunt bi leerul ci ñoom dañoo jàpp ne buñ ne lépp lu am cosaan rek ci diine jàpp nañ ne cosaan li mooy ginnaaw lii ma sos man ak julli la mm-hmm. julli am na ci lislaam mm-hmm. lii ma sos ak koor la koor am na ci lislaam mm-hmm. lii ma sos nangam la tudd yàlla la julli ci yonent bi la loolu am na ci lislaam fekk na dafa am ñaari mbir yu am bu ñuy wax dalil shari am mooy dalil boo xam ne day ñëw làmboo yu bari ci biir comme li ma la waxoon léegi ci aaya bi ah inna alayna jamaahu wa quraanahu foofu borom bi tabaraka wa taala dafa warlu dajale alquran gépp dajale gu ñëw ba ci dajale yi dem sax ba dugal la ko ci defal la ko ci benn benn disketu sidrom euh, nga di ko jëfandikoo ci ordinateur sax loolu ci biir dajale alquran ak wattu gi ko sunu borom tabaraka wa taala wattu ci la bokk yeneen yi ci des nag muy xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne nit ki day jóg di ko jëfe mu doon ay farata ci moom hmm. yooyu day wàcc lu gën a bari ci alquran hmm. wàcc ci ak yaatu li ñuy tudde ijmaal hmm. su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa la la sunna di jëriñ mooy day ñëwul leeral loolu nan lañ koy defee ndax kat wa aqimu salaata su ko yàlla waxoon rek ci alquran te xamuñu nu nuy jullee kon du sotti ndax fi ñu toll euh, alquran doo ci fekk ñu ne la julli yi juróom la doo ci fekk ñu ne la jullik tisbaar ñeenti rakkaa la jullik suba ñaar la jullik timis ñett la loolu nekkul ci alquran waaye nan lañ ko mën a xamee kon yàlla daf koy digle digle goo xam ne dañ ci yége ne lu war la ñu ne ah waaw lii bi mu nu waree nag nan lañ koy defe ñu ne ah leen ci ki njebal ci yéen ñu dikk ci kooku mu jàngal nu nan lañ koy jëfee bi yàlla ne wadkurullaha dikran kathiran tudd leen yàlla ak tudd gu bari hmm. tudd yàlla tudd gu bari lu jaadu la hmm. waaye nan la ñuy tudde yàlla hmm. yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima digal nu julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yéen ñi gëm yàlla julli leen ci moom nan la ñuy jullee ci moom yooyu ngir nu xam ko faw nu delsi ci ki ñu yabaloon nga xam ne dara taxoo taxu ko woon a jóg lu dul leeral yooyu faw nu delsi ci moom xool moom loolu nan la ko doon defee ndax loolu la yonent di jëriñ suñ bàyyi woon kenn ku nekk ak sa xel kon nga mën a fent féetal fent say julli hmm. fent na ngay jullee ci yonent bi hmm. fent nooy jullee tisbaar hmm. fent nooy jullee lu mën a doon waaye su alxuraan dikkee ne def leen lii dañuy dellu ci yonent ba xool nan la ko defe woon ak nan la ko digle woon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi saxaaba yi ñëwee ci moom ne ko ah yow xam nan nan la ñuy eh, jullee ci yow jàngal nu naka la ñuy mm. sëlmali ci naka la ñuy jullee ci yow xam nañ ni ñu lay nuyoo waaye mm. jàngal nu nan lañ lay jullee ci yow mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa leen di jàngal julli ga mm. euh, naa ko ci waxtaan yi weesu mm-hmm. euh, waxtaan Cheikh Ibrahima yi weesu mu leeral ko ci ay leeral yu leer nañ ñi mm-hmm. ci naka la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale julli ci moom nga xam ne julli yi mu leen jàngal li muy bari bari bari doon na ay julli yoo xam ne dana làmboog li ñuy wax asalaatu dana làmboog asalaamu dana làmboog itam salaat ala alihi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. te bu ñu waxee alu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko xamee mm-hmm. moo di saxaaba yaag mm-hmm. képp koo xam ne mm. euh, topp na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. ci ak njub mm. waaye du ni ko ñu bari jorte nga xam ne boo ne sallallahu alayhi wa alihi ñu defee ne aalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo di ñoo di ahlul bayt mm-hmm. ahlul bayt bokkul ak aalun nabi mm-hmm. euh, woykat ba def ne aalun nabiyi humu atbaau millatihi ala shariati min ujmin wa min urbi mm-hmm. law lam yakun aaluhu illa qarabatahu mm. salla almusalli ala taagi abi lahabi mm-hmm. mu ne kon mm-hmm. ñooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi ko topp ci sharia moo xam ay naar lañ moo xam duñ ay naar ña nga xam ne nag ñoom su fekkoon ne ñooñ yonent bi mooy waa këram rek ñi mu jege ñaaleel ci bokk mm. kon ki ne ki julli ci ñooñ yonent bi mm-hmm. dana julliwaale ci Abu Lahab mm-hmm. ndax bu dee ci aw askan rek jege nag ko moom mm-hmm. baayam ñoo bokk mu ne kon jubluwuñ ci loolu ñi ko topp ñooñu ñoo tax ñuy wax kon bu yàlla diglee dara ngir ñi xam loolu nan lañ koy jëfee hmm. faw nu dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hmm. mi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ne ko wa anzalna ilayka dikra hmm. li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim dañoo wàccee ci yow alquran ngir nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci yow kon faw ngir nu mën a jëfee dara faw nu dëppoo ak sunna mm-hmm. dëppoo ak sunna mooy nga xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii ndax defoon na ko wala defu ko mm-hmm. su fekkee defu ko woon bokkut ci sharia mm-hmm. lii bi mu ko defee ba àggal nan la ko defee woon nga jëfandikoo jëfiin wa soo ko jëfee weneen jëfiin daal di ngay juyoo ak sunna daal di tàbbi ci bidaa kañ la ko defoon su fekkee ne dafa dëppoog jamono soo ko jëfee ci jamono jooja dëppoo na ban lim la ca defoon su fekkee lu amub lim la soo weesoo lim boobu daal ngay juyoo sunna tàbbi ci bidaa nekk noonu topp sunna hmm. faw day dëpp ànd ak yooyu hmm. waaye du caagi ne suñ nee rek am na cosaan ci diine nga ne hmm. comme que digle nañ julli ci yonent bi kon julli gu la neex rek sooy bo nga indi yàlla digle na tudd yàlla nga ne kon tudd yàlla gu la neex rek sooy bo nga fental sa bopp indi de mbir mi du demee noonu sharia ci boppam alquran ju wàcc la sunna ñëw di ko leeral jullit bi ñu ne ko toppal yàllaa ko yonentam kon fétal moom fetal ci jii diine moom mm-hmm. amu fi place mm-hmm. ay participation lii maa ko ci dolleeg lii wàllu sàngam ak kilifa sàngam moo ko ci dolli mm-hmm. déedéet ci lislaam moom nanguwut loolu liñ nangu daal mooy toppal rek digal nañ la daal alxuraan a ngi sunna ngi bu dee wax waxal bu dee jëf jëfeel bu dee lu am waxtu tënkul ca waxtu wa bu dee lu amub lim na ca tënku bu dee lu am béréb tënkul ca béréb boobu foofa rek lañ ko war a defe noonu la jaamu yàlla mel euh, ci Euh, kon dafa mel ne tomb boobu kon leeral nañ ko bu baax a baax day mel li ci xaw a faat nit ñi rek mooy dañul xamul ne jaamu yàlla gi su ko yàlla diglee kayfiya ba muy melokaan wa itam ca ndigal la la bokk ndax ni nga ko waxee loolu mooy taxawaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen ci yonent bii nga xam ne moom lañu yebal royukaay bu rafet kon ni borom bi tabaraka wa taala diglee jaamu yàlla gi noonu la joxe ndigal yitam ci jaamu yàlla gi ñu war koo roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko waxee ci yonent yépp ne ulaika allazina hadahumullah fa bi hudaahu muqtadi ñii la yàlla jubal mu yonent yi kon nag képp kuy jaamu borom bi tabaraka wa royal ci seen jub googu kon mooy tax melokaan wa su fekkee moom nga bàyyi doonte loole am na cosaan itam eh, bu boobaa dafay daldi tàbbi ci bida kon nag euh, ñi nga xamal ne waxtu yi li ci des euh, bariwul jeex na daanaka kon docteur ñi ngi lay sant bu baax a baax te di jox mbooloo mi daje incha allah di leen dig ne incha allah waxtaan yi euh, dana continuer bunt bi lii ab dugg la woon rek madaxal ra woon rek benn introduction la woon pour dugg ci mawdoo boobu muy bunt boobu nga xam ne bu am solo la bu jara waxtaane la ndax jullit bi il faut muy jaamu yàlla te jaamu yàlla ga war naa fexe ba lu ca bokkul bu mu ca ndax bu ca bokkee dooxuma la ñàkk nga njariñ waaye day yàqaale sax ya nga xam ne moo ca bokkoon kon nag loolu moo tax mu mat a wattandiku bu baax a baax kon ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq euh, ba ci alxames yi ñëw ci sunu kanam incha allah ñu man di fi teew ngir continuer bunt bi incha allah ba mu leer ci noonu bu baax a baax baax nag euh, ñun ñu leen di jox gannaaw di leen gërëm ci jàppandal gi. di mhm. leen jox itam suñu disponibilité daal ci jamono yu nekk. incha allah euh, saa boo xamee ne waxtu bi maye na ko rek. Mhm. moo xam ci ak jokkaloo lay doon moo xam léeg-léeg ñu bañ a teew si benn euh, alxames. Mhm. waaye ala kulli xaal euh, fas nañ ko yéene ànd ak yéen daal. ala kulli xaal ba ba muy àgg. li fekk jàppandal gaa ngi am. di leen ci sant. wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ñu ngi di tàggu di leen jox daje incha allah beneen alxames euh, valeur yi moo nekkoon ci xarala gi euh, seen mbokk Ibrahim Khalil Lo ak gan gi nga xam ne moom la émission bi amoon tey di docteur Mouhamed Ahmed Lo ñoo leen doon defal minbarul islam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. walillahi ma fi samawati wa ma fi ard وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة kaana